أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة الإيمان والإسلام والإحسان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki M Media Group Nuuru Daarayni ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di jullit yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallam di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu xaq di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal suñu rëcc-rëcc te nu nga ñu suñu jaam yàlla bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ziyaare mbokk yépp nag yi ñu bokk liggéey bi ci bés yu sell yu tedd yi ñu génne yu barkeel yi di ñaan yàlla fekke koy ati at bi jay Seydina Muhammad te yàlla fajal suñu ajo zahiran wa batinan bi jay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu siyaare mbokk yëpp nag mbokk yi ñu bokkal liggéey bi yëpp góor ñi ak jigéen ñi di ziyaare kilifa ak jotaay bi kilifa ak liggéey bi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ñaan yàlla yàggal ko ci suñu kanam lu bare bare bi jay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tey ñu ñëwaat ak yéen ci fatwa bi rek xool laaj yi nga xam ne moo fi ñëw bi ci jiitu tey muy soxna Zeynabu Diouf ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di rafetlu taxawaayam di ñaan yàlla loolu ko jàppale doole ñoo jàppale bu baax bi jay sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam soxna Zeynabu Diouf dafay laaj ne man iqtarada mablaxan min almaali walam yaarif saaxibal mablaxi walam yarahu mundu sanatayni soxna Zeynabu Diouf day laaj ne lan mooy atteeb ki nga xam ne kii daa am bor te bor boobu kim ko ameel xamu ko maanaam xamul ki ko lebal xaalis bi te kooku ko lebalan itam toog na lu mat ñaari at maanaam gisatu ko te xamu ko xamul menn mbokkam xamul fu mu dëkk kon bor boobu nan la koy def loolu liñ ko ci wax mooy man iqtarada walam yajid man iqtarada minhu waqtal wafaayi wa yarju an yalqaahu fa alayhi an yantatira xatta yajidahu loolu dañ ko naan képp koo xam ne ki danga leb bor te gisatoo kala lebaloon bor ba ci jamono ji nga xam ne ji ca nga waroon a joxe bor boobu maanaam ci nga ko waroon a delloo te it nga yaakaar ne di nga ko gis di nga dajewaat ak moom ne ne da ngay xaar rek ba kere ngay gisaat waa jooju waaye nag fa in faqadal amala fi liqaa'ihi raddahu ila warasatihi in arafahum ne ne bu fekkee ne dem nga nag ba xam ne yow mii de yaakaar nga ne dootoo gis waa jooju ne ne nga jël xaalis boobu mu la lebalan boo xamee ña koy donn nga dem jox leen ko fa in lam yaarifhum te saddaxa bi anhu su fekkee ni nag maanaam alal ji gisoo borom xamatoo borom xamoo ci ña koy donn kenn ne ne danga ko koy saraxal danga ko koy saraxeel kon bor boobu da koy saraxe rek saraxeel ko borom bor bi nga xam ne bi moo ko lebalan fa in zahara saaxibul qardi baada zalika axbarahu bil xaal su ko su ko saraxee nag su demee ba gis borom bor bi léegi da koy wax ne ko yow kat xaalis bi nga ma lebalan maanaam saraxe naa ko wa saaxibul maal baada zalika bil xiyaar su boobaa borom alal ji nag mooy xool sarax boobu da koy wéyal wala da koy delloo ab xaalisam imma an yaatabira alqarda sadaxatan anhu borom bor bi su nungoo ne sarax boobu kon léegi maa ko moom d'accord naa ci mu wëy mu doon ab saraxam aw an yatluba al muqtaridu bil maal wala kon bu sàkkoo ne man nga bor boobu sarax boobu wëyalu ma ko kon da koy jox ab xaalisam moom mi mu yow mi mu lebalan te yow sarax boobu nga saraxeen xaalis bi léegi yow nga moom sarax boobu wa inda zalika yajibu adaahu ilayhi ne na booba danga koy delloo xaalisam te yow sarax ba nekkal la fa nga moom yool ba soxna Zeynabu Diouf beneen laajam bi mi ngi laaj xukmu man tawaddaa wa tadahana bi duhnil karimati xabla salaati beneen laajam bi mi ngi laaj ne ki jàpp ba pare mileenu njëkk mu julli lan moo di atem loolu dañ ci naan fastimaalul karimatil al aslu fii al ibaaxatu mileen yi nga xam ne yi maanaam du suppi aw yaram yooyu lu dagan la nit ki mën na ko diwoo saa su ko neexee su jàppee ba pare mën na ko diwoo maanaam mileenu bala julli waaye tamit su jullee ba pare bu ko neexee mën na ko mileenoo bu nekkee daal ab diw boo xam ne bii maanaam du suppi yaram bu la neexee boo jàppee ba pare daal di mileenu doog a jullee loolu tax mu ne may nañ la ko maalam yarut ma yàq di ak taxrima ne dal fekk nekkul araam maanaam mileen bu araam te mooy buy xeesalaate masalan bu boobaa may nañ la ko nga mileenoo ko bala nga julli wa fi xaali jawaasi istimaalil karimaati fala maania min istimaaliha baadal wudu yi comme nag diw yooyu nga xam ne du suppiw yaram daganal nañ la ko nga diwoo ko ne ne duñ la tere nga di ko jëfandikoo ginnaaw jàpp waaye itam wa kadhalika xablaha donte sax danga mileenu mileen boobu nga mileenu ci dem doo ko jàpp jàpp itam maanaam nga jiital ko ca njàpp ma itam ba tey may nañ la ko mileen bi daal may nañ la bu la neexee nga mileenu jàpp bu la neexee boo jàppee ba pare mileenu bu doonut mileen buy xeesal waaye nag ne day ami charte muy iza lam yakun lahu jirmun yamna'u wusulal ma ilal bishrati men rek mileen biñ lay may nga mileenoo ko bala ngay jàpp moom mooy doon mileen boo xam ne bii diw rek lay doon nga xam ne du doon loo xam ne day taq ci sa yaram mel ni da koo pentir nga xam ne boo jàpp ndox ma du mën a àgg ci sa der bi bu dee mileen bu tal la bu foor boo xam ne day mel ni pentir ne ne buy boo boo boo jàppagul moom duñ la may nga mileenoo mileen bu mel noonu waaye bu dee bu oyof la nga xam ne du tere ndox mi àgg ca der ba may nañ la nga mileenoo ko bala ngaa jàpp waaye may nañu itam soo jàppee ba pare bala ngaa mileenu nga diwoo ko kon ne ne fa aslu istimaalil karimaati al murattabati fala ba'sa bihi fuqaha yi ma ne ñu ñuy jàngal fuqaha daal nañu diw yooyu diwi yaram yooyu nga xam ne du xeesal lu daggan la may nañu nit ki mu mileenoo ko diwoo ko saa bu ko soobee beneen laajam bi ci topp ba tey Zeynabu Diouf day wax ne hël li salaatil fajri ak tashahudu day laaj ne ndax jullik fajar maanaam ñaari rakkay fajar boo ko jul ndax am na ab taaya waaw loolu lañ ko ci doon dañu naan naam li kulli salaatin tashahudun fardan aw naflan julli moom julli gu mën a doon rek moo xam jullik naafila la wala jullik farata la day am ab taaya julli day am ab taaye siwaa salaatil janaasati fala tashahuda laha ba mu des nag jullig néew jullig néew rek moom la ñuy julli te amut ab taaye waaye nag yeneen julli yi goo mën di julli moo xam jullig farata la wala jullig naafila la te jullig fajar gi muy laaj ndax am na ab taaye jullig naafila la day am ab taaya waaye jullig néew rek moo amut ab taaye nga xam ne moom ay kàbbaral rek ak ñaanal néew ba ak sëlmaliya waaw bu ko defee beneen laaj bi ci toppaati mu ne fahal alal mar'ati al iqaamatu ba tey sëy na bu di laaj ndax jigéen war naa taxawal ci julli maanaam buy julli mu liqaam waaw dañ ko naa fal mar'atu inshaaha aqamat wa inshaaha tarakatil iqaamata jigéen moom yombalal nañ ko may nañ ko dagal nañ ne daganal nañ ko bu fekkee ne day julli su ko neexee mu liqaam su ko neexee mën naa bañ a liqaam lu mu ci def rek maanaam loola du yàq julli ga bu liqaamee baax na waaye bu liqaamut it maanaam julli ga day baax beneen laaj bi ci topp muudu ngoom ñi nga jëwriñu liggéey bi moo ko fi yónnee am mbokk mu ko jaarale ci moom muy laaj xukmu man taala safaruhu wan xataa xabaruhu an ahlihi wa maata waaliduhu fama xaaluhu fil miraas mbokk mi day laaj koo xam ne ki dafa tukki tukki bu yàgg-yàgg ay bokkam dem ba xamatuñ ci moom dara te léegi waajuram wu góor faatu ginnaawam léegi ne ne kooku tukki te tukki ba yàgg na te xamatuñ ci moom dara suñuy miraas waajuram woowu faatu ginnaawam moom ndax dina bokk ca miraas ma wala déet loolu itam lañ ko ci wax dañ naan yuxkamu bi mawtil mafxuudi baada arba'i sanawatin min taarixi faqdihi fala yarisu min gayrihi wala tasbutu lahu lwasiyatu min gayrihi waaw ki nga xam ne kii de moom dafa tukki te tukki ba yàgg mu dem ba nga xam ne bii xamatuñ ci moom dara maanaam dañuy gëstu ay mbiram bu baax a baax a baax bu ñu mënee am lu leer naññ ci ne moom day faatoo gut waaye dañ dafa yàgg rek su booba su waajuram woowu faatoo moom dañ koy boole ca miraas ma dañuy génn ak cëram dencal ko ko waaye itam bu ñu gëstu ba mu leer ne moom faatu na moom dootul bokk ca miraas ma ndax moo jëkk a faatu waajuram woowu waaye nag masala bi muy laaj bi nga xam ne bii moo rot nii su amee maanaam bu dee ni fu ñuy àttee sharia lañu dañu dem ci ab àttekat moom mooy àtte teg àtte bi ma wax léegi ci arab bi mooy ñu ni jàngal fiq dañ ne su lii amee nit ki tukki na te tukki ba yàgg na dem nañ ba xamanuñ ci moom dara dañuy jël mbir moomu daal di koy yóbbal yóbbu ca yoon masalan maanaam sharia bu fu ñuy àttee sharia ñu yóbbu ko ca ñay àtte su ko defee àttekat mooy teg ne ki nga xam ne kii kat dem na gisatu leen ko te xamatu leen ci moom dara te waajuram wi faatu maanaam da ngeen di xaar ñeenti at gëstuwaat ay mbiram ba xam maanaam lii la àttekat bi day teg da leen naan da ngeen di xool jamono ji ngeen xamante ne ji xamatu leen ci moom dara ngeen jàpp foofu tàmbalee di xaar ba mat ñeenti at su ngeen amaatee ñeenti at nag ci kanam te xamu leen ci moom dara comme ni mu demee woon su boobaa ngeen daal di mën a séddale mira alal alali waajur wi te moom su boobaa du ca bokk ndax su boobaa attekat bi dane bu ñeenti weeri jàlle rek moom dañu daal di jàpp ne kon moom léegi daal ku faatu lañ koy jàppee léegi dootul bokk ca miraas ma kon daal ne ne falaa yarisu min xayrihi wala tasbutu lahu wasiyatun ne ne su boobaa su attekat bi tegee lii ñu toogaan ñeenti at nag su boobaa moom du donn kenn ci ñi mu waroon a donn waaye tamit duñ ko tegal ne daal moom lii ab dénkaane la boo xam ne bii dénkaane woon na ko ngir ñu di ko ca defal dara kon daal loolu mooy atteeb ki nga xam ne kii dafa tukki te yàgg ci tukki ba dem ba gisatuñ ko. masala bu doy waar la nag ndax dafa lënt lool lool dafa lënt moom nit ki moom bu demee ba xamatuñ ci moom dara rek. charia li ñuy tegal muy ñi jàngale fiqh dañ ne léegi dañuy jël mbir yooyu yóbbu ko ca attekat ba attekat kii atte ci charia su ko defee moom mooy jël tëralin bi mu wax nii ne léegi da ngeen di xool bi ngeen ko mujjee ndimbeku mujj xam ci moom ngeen date ko ba mat ñeenti at su ko defee su ngeen toogaatee nag ba am ñeenti at te xamut xamu leen ci moom dara su ko defee ngeen dugg a wéyal miraas moom maanaam def miraas moomu séddale alale seen waajur woowu faatu waaye moom mee tukki kon loolu gi moom dootul bokk ci miiras mi yal nañu yàlla doole defal tawfiq bi jeey sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam